ñuy waajal gàmmug Tiwaawoon atum 2023 ba Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ni moo yor kàddu yoonu murid yabaloon délégation bu takku lool ci dëkk bu sell bi nga xam ne mooy dëkku Seydi Hadji Malick Sy ngir ñi ñëw indil ko ay ziyaaraam feddaliwaat kóllëre gi nga xam ne moom moo dox ci diggante ñaari kër yi nga xam ne duñu ñaar benn lañ waaye gën a rataxalaat li nga xam ne moo jëm ci mbokk gi délégation bi nag sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma moo ko jiite woon ànd ceeg kilifa yu takk lool bi ñu agsee fii ci Tiwaawoon njëkkee nañu ziyaar yi ci kër xalif bi muy sëriñ Babacar Sy Mansour délégation bi ki nga xam ne moom moo di sëriñ Babacar Sy Dabaax moom moo leen dalal waxtaan ak ñoom ci jotaay bu yaatu boo xamante ni ñëwaat nañ ci mbokk gi ak rafetlu jëfi sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadr mi nga xam ni at mu jot dana fi yabal délégation ñu ñëw fii ci Tivaouane ngir ànd ak ñoom gàmm gi nga xam ne moom lañ fi amal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, Serigne Babacar. maam Cheikh Abdoul Aziz. maam Cheikh Sidi Hasi Malick. Serigne Cheikh Abdoul Ahad moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde faatma wax na asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. nee na kaddu nuyoo googu mi ngi bàyyi ko ci délégation bii mu àndal tan di ko bëgg a lim. jóge ci cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Abdoul Khadir di Sarak mu bàyyi ko ci Serigne Touba cheikh Mouhamadul Mountakha ngeen bokk wenn waajur nee na bi jëm ci. xalifa bu mag bii nga xamante ne bii moo di Serigne Babacar moom Cheikh Mouhamadul Mansour moom Cheikh Sidi Hassi malik ak mbooleem njabootug Cheikh Sidi Hassi Malick gépp danaa ñëw ci délégation bi waaye dafa am ñaari kàddu yu ma ñor lool te ma dégg ko ci wax ji dégg ko ci sa biir wax bi njëkk mooy mbokk mi àndoon ak Aliou Nguy Ndiaye dafa wax ne Aliou Nguy njaay naasiril xaq bil xaq la nàmp waaye kër Cheikh Cheikh Serigne Touba Khadim Rasoul la ne ma ne ko kooka foofa la ko nampe allahuma ya akramu salli ala sayidina muhammadil fatihi lima uxliqa wal xaatimi lima sabaqa nasir al haq bil haq wal haadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haq qadrihi wa miqdaari al azim loolu rek la Tiwaawan di def moom la Serigne Touba def ci tarjumaani mawaahibu kon kooka lam namp kër Cheikh Sidi Hasi Malick moom la namp kër Serigne Touba kër Cheikh Sidi Hasi Malick it kër Serigne Touba menn maam képp lañ am muy maam maharam maam maharam moo am ndam ñaari sëtam ya kenn kaa nekk Touba yëkkati drapeau bu l'islam ba adduna bépp di ko séen kenn ki nekk Tiwaawan wooteel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàmm ba adduna bépp di ko fekk kon ndam li maam maharam moo ko moom génn kër képp la du yaari kër ci biir délégation bi buñ ci àggee da nga xam ne kër gii genn kër la tànkum ndijoor la rek ak tànkum càmmoñ ñu bàyyee kàddu gi ak sëriñ aboobu sa talxatu mu yëkkati kàddu sëriñ bi mu jëm si ci sëriñ bi war a jàll ci sëriñ ba kon sëñ bi bisimilah. bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al bi ñoo ngi lay nuyu noo ngi lay ziyaare noo ngi lay ndokkeel ci bis bu tedd bi ñu nekk ak ci fan yu tedd yu ñu nekk di indi nuyoo ak siyaar bu cheikh Mouhamadunil Bachir moom cheikh Abdoul Qadir waaye mu teg euh, délégation boobu ci loxol Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma mu ànd ko ak mbokk yi nga xam ne moom la Serigne Fallou doon lim léegi ci délégation bi ñu ñëw fii ci alxadara al malikiya ngir ndokkeel si leen ci bis bu tedd bi ñuy jublu si waaye ànd ak yéen bis bi ngir xam ne diggante ñaari kër yi relation bu yàgg bi nga xam ne junj nga ko sëñ Fallou junj ko mu amoon ci diggante Cheikhul Khadim waaye amoon it ci diggante Seydil Hadji Malick muy lu am am solo euh, relation boobu nga xam ne moo am muy dox ak bokk nga xam ne sunu borom moo ko santaane waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu inna almuminuuna ixwatun wala tanaazacu fa tafsalu wa tazhaba riixukum yooyu yëpp ay ayaat la yoo xam ne tànk yi da koy firndeel da koy jëmmal ngir relation bi doxoon diggante Seydil Hadji malik waaye it doxoon ci diggante Seyxul euh, Xadim mooy niñ ko waxee léegi relation la bopp liñ bokk dafa bari ginnaaw askan wi dañoo bokk lislaam ji bokk dëkk bi muy réew mi te yooyu yëpp am lu ca war kenn ku ci nekk tool ba nga nekkoon doon ca liggéey mooy fexe ba defar doomu aadama moo taxoon a jug Seydil Hadji malik moo taxoon a jug it euh, Seyxul Xadim ndax kenn ku nekk ci ñoom ñaar ciw sas nga nekkoon di ko bay waaye xam nañ ne sas woowu ki ko moom kenn la mooy sunu borom loolu moo tax boo demee ci faakihatu tullaa bu Seydil Hadji Malick wax na fa lu mel noonu fa turuxu kulluha ila rahmaani musilatun muslikatun yaa jaani boo demee ci kifaayatu raaxibiin ba tey bu Seydil Xaaji Malick junj na fa lu mel noonu wane ne sëriñ si lii seen rôle mooy defar ak yeggale ci nit ñi waaye tool bi benn la li mu yaatu yaatu kenn ku nekk jëwrin nga fa nga nekk di fa liggéey lislaam loolu moo waral Seexul Xadim moom it ci même taxawaay boobu la am ci jàpp ne turux yëpp ñoo bokk fu ñu bàyyi ko ñooñ ñëpp ci ilal rahmaan yi fa kullu wird muslikatun yaa jaani ni ma ko waxe léegi waaye fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawaun intama ila al jilani aw intama li ahmad tijani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaabi loolu kon li mu tekki mooy ñoom ñëpp ñoo bokk fenn fu ñu jëm te Seydil Ha si Ahmad Tijaani Serif mi nga xam ne mooy saaxibul eh, tariqa at tijaaniya moom ci boppam sëriñ bi nee na ci ay sëriñam la bokk reconnaître ko loolu mooy yaatu ak ubbiku dënd gi nga xam ne ñoom ñëpp doon nañ ci wootee mooy masaayixi sayidunul jilaani achazili maahu tijaani loolu mooy relation bu yàgg boobu nga xam ne moo am diggante liñ bokk buñ ko xamee xam nañ liñ bokk ba noppi ñu xam ne ñoo bokk benn tool buñ doon bay muy toolub lislaam moo waral eh, kenn ku nekk ci ñoom daan jokkalante ay addiya waaye daan siyaarante di def lii ñu def nii seeni maam ñu tàmbale woon ko doon ko def bu yàgg-yàgg siyaar si na Seydil Xaaji Malick foofu ci njarnde googu seeti ko fa ñu gunge ko fa gunge bu yàgg yàgg yàgg waaye yëmulu ci ñu daan joxalante ay addiya kenn ku nekk ci sa morom ba gis nga bayit yu siiw yooyu nga xam ne moom la joxoon maam xaan gum téere boobu doon ko ko yëtloo Serigne Touba radiyallaahu anhu ginnaaw ba mu di ko ko wax hadiyatun mujibuha cilaabu mahabbatin ya ayyuha alxubaabu adaama la lana xablal wisaal wa kaffana soralli si ada wisaal kee wax ko lam ko wax ci addiye ji lam ci jublu mooy cofeel goo xam ne seen diggante ñoom ñaar moom lañu war a am muy cofeel goo xam ne day sax ba faw nga xam ne yàllaay tax ñuy bëggante yàlla mooy tax ñuy def ndax kenn ku nekk defar doomu aadama ak mel ko melokaan woo moo waral lu mel noonu loolu nag moo tax délégation bi Cheikh Mouhamadunil Bachir yabal ko fii ngir mu dox si tànki mbokk yooyu waaye dox si tànk yooyu nga xam ne moo doxoon diggante Sëñ te loolu ginnaaw Sëriñ Tuubaa ba léegi muy rafet tàmbalee ko ci ñi fi wutu Sëriñ Tuubaa ak ñi fi wutu Seydil Hadji Malick ñoom ñëpp seen i jokkalante ak seeni i teraanga waxtu wu nekk ñu di ko gis ñuy baagante diggante Touba ak Tiwaawan kon jataay bii du jataay boo xam ne moo njëkk ci jataay yi waaye lu ko jiitu ca mag ña doon nañ ko tàmbali ba ci sa wayjur ñu xam ko lool tàmbale ko ci nekku Cheikh Mahamadou Moustapha mu tàmbalee foofa di ñëw tuubaa di si di di fa si di ñoom it ñuy yónnee délégation muy jox xalante bu yaatoo yaatu ba gis nga marché boobu mu defal Sëñ Laxat muy marché bu yéemee yéemee waaye gis nga it marché bi nga xam ne defal na ko eh, Serigne Abdoul Khadir yooyu yëpp boo ko boolee relation bu yàgg-yàgg la boo xam ne xam nañ liñ bokk mooy mbokk gee mooy xaraaba rahimiya gi nga xam ne moom lañ bokk xam nañ ko waaye bu ñu ko xamee ba noppi nag téye nañ ko duñ ko dundal ndax niñ ko waxee léegi innamal muminuuna ixwa da nga koy xam ba noppi fa aslihu bayna axwaykum bu fekkee dangaa xam ne lii ay mbokk lañ ba noppi te duxoo ci lu koy defar duxoo ci lu koy dundal su boobaa dëgg-dëgg ixwa googu sunu borom di wax du feeñ kon balay feeñ fa aslihu bayna axwaykum mooy li koy euh, mooy li koy dëgëral ba tax mu mën a nekk te loolu moom la nekkoon moom la mag ñëpp nekkoon doon ko dundal bu baax a baax a baax te loolu feeñ na ci seen i jëflanteen feeñ na ci seen i waxin feeñ na ci seeni i addiya feeñ na it jëfinu njaboot gi nga xam ne moom lañ jëf loola nag ca la Cheikh Mouhamadou Bachir jële lu yàgg lu cosaane loolu yabal délégation bi mu yabal ngir rek firndeel ak cofeelam ak euh, sargalam ak ndokkeelam ci bis bi nga xam ne moom lañu jublu muy laylatu moo mawlidi bi guddi gi nga xam ne taxawaay bu rëy la ci Seydil Xaaji Malick amoon ba tax na ñu baree baree bari bu ñuy wax gàmmu tey danañ ko xame ci moom ngir dundal gi ak yaatal gi loolu moo waral kon su bis bi ñëwee ñu yebal bu toll nii ak ni mu li ni seen fàllu lim ni mu baree takku loolu lépp ngir xam ne kër gañ jóge mooy seen kër gi amul ñaari kër genn kër la ndax Seydil Xaaji Malick Serigne Touba radiyallahu anhu benn jëmm leen du ñaari jëmm kenn ku ci nekk it xamoon na lam lam lam doon def ci ak njabootam kenn ku nekk it xamoon na lay rôlam ci defar doomu aadama te loolu fes na bu baax a baax a baax ci say kàddu fes na ci kàddu Serigne Fallou te loolu mënees na cee gën a yaatal kon xëy na ngir euh, guddaayu jataay bi ak mbokk yi nga xam ne ñooy taxaw di xaar mën nañoo wax ne daal sëriñ Bachirou am na mbégte lool lool lool lool lool lool sëriñ Bachirou moom sëriñ Abdoul Khadir am na mbégte sëriñ Abdoul Ahad mi nga xam ne moom la teg délégation bi ci loxoomit am na mbégte ci yaatal gi ak ci dalal gi waaye it ak ci yittewoo gi ndax yëg nañ ni fii bu buñ fi ñëwee ci seen kër lañ ñëw dañ leen di yaatal may leen ci seen bopp loo xam ne duñ ko fi may ñu bëree bari loolu nag ak ak ak yaatal la loolu it ak yëg mbokk gi ñu dox si la loolu it ak ak rafetal la loolu kon nee na mi ngi ciy sant bu baax a baax a baax di ñaanal Serigne Babacar Sy Mouhamadinil Mansour sunu borom sàmm ko aar ko ba yéeneem ci lislaam ak ci xadaral malikiya sunu borom sotta defal defal ko ci ndam lu yaatoo yaatoo yaatoo sant na bu baax jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillah alhamdulillahi ala nicmatay al imaani wal wasalaatu wasalaamu ala alfatixi alxaatim xayri alanasim alladi bayyana almacaalima lilcawaalim wa hada alcawaalima lilmacaalim sallallahu alayhi wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaa'ihi wa man iqtafaa athaarahu wahtada bi hadiyihi ila yawmi ddin jaalana allahu minhum sëriñ Abdul Ahad Gaynde Fatma ñu ngi yëkkati kaddu ci sa turu baay bi toog ci sa turu ndijaay ji toog kaddu yi delloo cant delloo nuyoo ak cant ak ndokkeel yaakaar na xam ngeen lu tax ma ni ndi ni bàyyi waaw sa baay bi toog suñu baay gaynde Fatma tax sa sa ndi toog soxna baalee tax rahmatullahi alayhima wa radiya anhuma loolu xam ngeen ni jaxasoo na de kon sëriñ baa ngi am mbégte nee na loolu yëpp ci coobareg yàlla la subhanahu wa taala loolu sëriñ bi sa ak mboolem délégation bi nga àndal sëriñ Galas xam naa ñëpp maa ngi maa ngi manuma lim bindu wa tabaarakallahu ndax lim dafa liste bi dafa nekkoon ci Serigne Fallou waaye kon bu ñu la tuddee nga yóbbaale ñëpp rek fa tabaarakallahu ba ci Ahmed salum Dieng Serigne Galas Kantoum ah kooku mooy moom moo tax man moo dama ne Serigne Galas moom ak Ahmed salum moom bindal nañ ko fii tabaarakallahu moom it mu yàgg fee ñëw lool comme ni ngeen ko waxee di yàggal liggéey ci toolu diine ji te fu fa demit nga xam ni jëwriñu maam borom Touba fa ñëw fa tabarakallah loolu nee nañu ragal péete day xañee wërsëg nit ku nekk nit ñi mënu ñoo yeewandoo ci bennum néeg mukk mennum dëkk dëkk la ñuy bokk garabu ngàññantaan gaa ngi nii mooy mooy garabu pénc mi ñëpp a daje waaye bu tëdd jotee ku ne dem sa néeg bëgg a nekk nag ci garabu ngàññan fanaan ci nekk ci ëtt bi wala nekk ci pénc mi bëgg kër gu nekk nga ni la togg sama kër la ñëpp di togg sëñ bi loolu moom àggul ci boroom xel du ko def kon nag fa tabarakallahu te sëriñ bi wax na ko fii léegi li ñu bokk dafa bari te rafet ñu fexe te bokk yi ñi nga xamante ni bi ñoom la ko yàlla jaarale ci seeni loxo di ko rafetal ba mu agsi ci ñun kon ki ki nga xamante ni bi moo ko téye li mu war a ittewoo mooy def kem kattanam ba jaaroo bi nga xamante ni bi moom lay wee ci càllal ak bokk gu rafet goo gii fi jaar dara bañ a wuuteeg euh, jaaro yam fa fekkoon kon nag loolu mooy sababu tànk yii nga xamante ni bi moom la leen suñu baay Cheikh Bachir Abdoul Khadr fa tabarakallahu yónni at bu jot nga jiite ko jiite délégation bi ñëw fii jotal yooyu yooyu tànk ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala comme ci kàddu gu rafet gi nga xamante ni bii suñu mbokk mu baax mi yëkkati na ko léegi mooy lu rafet tabarakallahu dajeeg maam borom Touba ak Maulana Cheikh Cheikh El Hadj Malick anhu bari na lool bari na lool ci senegal foo ñu daje. bari na lool fu ñu daje ci senegal waaye bokk na ca fa nga xamante ni bii moo ca gën a ràññeeku ñu wax ko Njaarnde maam borom Touba fekk na fa maam Cheikh Al Hadj Malick Fass googee nga xamante ni mooy fas gu magga fa sëñ Haadi jëkk baayam toxoo muy maam Chiisa ture nekk di doomi maaram ba tey ñëw Fass Touré foofee ca boppam ca seen xël ga ca dëkk ba mam borom Touba daje na fa ak mam Cheikh El Hadj ak mam Cissé Touré daje yooyu yëpp nag du dajeeg lu dul daje yi bu mel nii dundal bokk gi nga xamante ni bii dañoo fekk yàlla dogale ko yàlla doxale ko ci seen diggante te sama turandoo ko da daan faral di wax ni na ngeen yëg ni muus ak bari pexe ak aggul ci fàggu fa ngay juddoo muus ak bari pexe ak aggul ci fàggu fa ngay juddoo kenn ku nekk fa ngay juddoo yàlla la koy wutal waaye bu yàlla bu la yàlla dugalee ci béréb it am ñum la booleel na nga yëg ni manoo bari pexe pexe ba wut ñeneen ñu gën ñi la yàlla wutal mukk ci àdduna mag ñi loolu la ñu xam moo tax ñu jël bokk gi fonk ko teg ko ci seen digg bopp di ko sàmm guddi di ko sàmm bëccëg moo tax ba maam Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu maam borom Touba yendoo ak maam Cheikh Al Hadj Malick ca Njaarnde maam Alaaji Malik xam na ni nitu yàlla ak borom xam-xam dafa am loo xamante ni bi moom lañ koy terale Cheikh El Hadj Malik radiallahu anhu foofa ca ca njaarnde jëmmale na ko gannaaw bu ko maam borom maam Cheikh El Malik joxe benn téere bu ñuy wax ar rimaax rimaax téere la boo xamante ni bi maam Cheikh El Hadj Omar al anhu moo ko taalif bu ngeen demee tey ci jawahirul maani bi nga xam ni mooy téere Cheikh na Ahmed Tijani rimaax boobu moom lañ ko wërale ci téere yëpp fa tabarakallahu mu rimaaxu Cheikh Al Hadj Oumar moo tax mam borom Touba ba mu yendoo bay dem dafa bind aw bayt ca loolee ca jotaay boobee ni waman yurid nayla asrarin wa fala yufaariq rimaha cheikhina umara waaw mu ni képp koo xamante ni bi bëgg nga am ay mbóot ak xam-xam bu doy boo xamante ni bi dina la gindi sa digganteeg sa boroom bul tàqalikook rimaahu cheikh alhaaji omar bi radiallahu anhu mu ni wa ma taxastu xalilan maam maam borom Tuubaa mooy wax ba tey de radiallahu anhu wa ma taxadtu xalilan kuntu aarifuhu illa jaaltuka fawqa alkulli fi rutabi mu ni Mawlana Cheikh Alhaaji malik yow sama mbokku nga yàlla xam def na ko moo waral sama tànk yi dundal bokk googu waaye na nga yëg ni man sama xarit nga nag gannaaw bokk gu nekk day amuk xarit xarit nag du yemul ci yow xëy na am naa ñeneen waaye maa ngi lay yëgal ni amul kenn ku la féete kaw ci xarit gi ci xarit yi ma am loolu nag ak bokk la goo xam ni da yemuñu woon ci xam ni bokk nañ ko dañoo yem dañoo xam ni bokk nañ ko ba noppi xëy teg seen tànk ci li leen yàlla wax te suñu mbokk mii mu jiitu ba waaye daanaka man mën naa jaar ni mën naa jaar ci li mu waxoon rek waxaat loolu daanaka damay répété fa aslihu bayna ko ndax mbokk bu fu nekkee te yéen doxu leen tànk yi yéwénal bokk googu lu bokk gi nu bokk googu di dundee nan la di mbokk googu di dundee loolu mooy tànki sëriñ mooy yóbbante sëriñ Bas bii nga xamante ni bi moo waral mu leen fi yebal ci jamono ju xamante ni bi lu mel nii xew na fi moo waralit sëriñ bi lu xew Touba ñu def noonu ndax xam ni lépp benn la te nag seenu kànd fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin jàmmi senegal giila seen ànd di yëkkateendoo di tegandoo jàmmi Sénégal gii la fa tabaarakallaahu ñu ngi sëñ baa ngi seetlu bu baax a baax ay at a ngi nii ca jamono sëñ Sidi Maxtaar ba fii ba fii mu toll amul benn bisu julli boo xamante ne bii Tuubaa wuute na koog Tiwaawan c'est important yooyu ay ay ay sawaabit la ay constante yoo xamante ni bii war nañu taxaw ci saxal ko sëriñ bi loolu lay wax ci saxal ko bu baax a baax a baax a baax am na noo xam ni nag koo xamante ni bii loolu neexu la loolu yàgg naa naqari ku ku ku ku ku amul ndimbalal yàlla wala ku na ku yàlla nammul ci yow aw yiw kooka nag du la tax a tardé du la te yow nekk ci li nga war a nekk te loolu yëpp leer na am na ñu doon wax ay vidéo yu nekk gis nañ ko ci àdduna bi ñu di ko wax avant gam màggal gi ak yu ne dañ perturber fii dañ yooyu yëpp defoon ko pour perturber nit ñi rek waaye yaakaar naa lu ngeen gisoon ci aw nit li ngeen gis rek na ko nit ñi loolu ébranlé wu leen am na loo xamante ni moo jiitu ci seen xol te sax na ca yëfi caaxaan yi mënu ci dara dara tel bokk na ci li koy gën a dëgëral mooy nii rek nii rek bañ a umpante rek bañ a umpante rek lépp lu xew umpante koy waral te bu tànk yi saxee rek incha allah kumpante dootul am te dinañ man lu ñu bëgg a sottal dinañ ko mën a sottal fii incha allahu taala ndax kand ci la yàlla def denc ay mbiram ya yàlla nee na aljamaatu rahmatun wal firqatu adab maam xalifa radiallahu anhu sëriñ Babacar si nee na aljamaatu mbooloo ñu ni mbooloo rek déedéet mu ni mu yëkka mu ànd di yëkkateendoo di tegandoo rahmatun lu ñu jéem man ko wal firqatu mbooloo moo xamante ne bi yàlla da koo nattoo tàqali ko aadaabun du ñu jéem lu sotti kon nag ànd gi ci la lépp nekk moom la kilifa yi xam ba di ko dundal ci biir di ko dundal ci biti seen i ñaan ca biir ba pare feeñal ko lii ci kaw njaboot gi jàkkaarlook lii xam ni diggante ñaari kër yi lii fi nekk moo nekk ci diggante kër yi diine yëpp ñu ànd joxante loxo rawatina nag ñi nga xamante ni bi ñoo taxaw temm ci ci dàkku li nga xamante ni mooy as suufiye loolu budul woon budul woonu bokk wala diine kere rek suufiye sax gi nga xamante ni bi moom la mag ñi jël te suufiye googu doon moo xamante ni bi mooy xeetu lislaam daanaka moo musal Sénégal ci li xew ci mboolem réew yi ko wër loolu ci boppam ñu taxaw ngir màbb ko loolu rek war naa tax ñu gën a boole suñu bopp. te loolu nag ci lii bu saxee incha allahu taala loolu rek mooy am incha allah kon yàlla nañu sëriñ baa ngi kontaan di bég ci délégation bi daanaka leen lu ñu wax rek damay daal di delluwaat ci sama mbokki mbokki mi li nga xam ne li mu li mu waxoon. yàlla nañ fi màngee sa cofeelu sallallahu alayhi wa sallam. ndax nee na am na loo xam nag moom def defu yàlla la yàlla def na ko ba noppi ay bokk lañu ñu dajewaat ci lislaam mu gën a feddaliku ixwatun nee na diggante bi diggante bu rafet la nee na lii yàlla jëm kanam ci lii la yàlla di bég ci lii la yàlla bég yàlla boole yàlla boole yàlla mi boole nag yàlla mi boole nag ci bëgg-bëggam ci bëgg-bëggam mooy lépp taxoo mooy lépp taxoo ànd nekk benn ànd nekk benn wax da nee ko ci suñu borom boobu nee na nee na nee na sëñ sëñ laat nee na ci mbégte suñu borom moomu yàlla nañ ci am ngërëmam amiin nee na nee na nga dogalu leen loolu sëriñ bi incha allah kon ñu ta ñu tàllal loxo yi ñu ah, tàll man saara ala dar bi wasal wasal ku jaar ci yoon wi rek ag te yaa ngi ci incha allah te yaa ngi ci li seen maam Mansour waxoon sa ni ko laatal tafit uh-huh. góor du gees ñu ne mu ne innal karima xayuru góor day fiir te la ko tax a jóg waaye geesu moom waratoo ko am di te ku la soxla na la dab te bu la dabee it bu mu la wax loo bàyyil ba dox li ngay dox ba pare waaw yàlla leen yàlla taxaw waaw kon jàngal ma fatiha ñu jàng li ci des waaw tàllal loxo yi te wax amin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima ughliq والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والبركات والأرزاق والقبول والرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والشقاوة والضلالة والطغيان والكفر والفقر والمعصية والمضرات والتعصير وتكن لنا بها ولي ونصيرا في ديننا ودنيانا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير fa niamal mawla wa niamal nasir subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin